universel looloo tax bu xew-xewam ñëwee rek ku ne am nga ci wàll wax dëgg yàlla te tànk yi ngeen jëkkati jóge fa ngeen jóge ñëw ba fii loolu tuutiwul ndax ku ne xam na ni benn mission ngeen yor te mission bi ngeen yor tuutiwul mooy mission tabax réew te dafa am atam nitu gouvernement ñëw fi Serigne Cheikh waxoon ko baat bu jara bàyyi xel daf ko wax ni ko xeebuñu la mu ni ko ndax responsabilité bi nga yor mu ni ko bu la yàlla xeeboon du la ko jox mu ni ko ku yàlla xeebul nag keneen du ko xeeb te it wax dëgg yàlla responsabilité yéen tam bi ngeen yor bu leen yàlla xeeboon du leen ko jox te dafa am xëy na beneen boole boo xam ni xëy na yàlla daf leen ko boole ak ki tax ngeen ñëw fi tey mu di Seyd Mouhamadul Moustapha ndax yàlla dafa dogal damay wax ni képp koo xam ni sol nga mbubb defar réew mi walla nga sol mbubb tabax réew yàlla dafa dogal ni Seyd Mouhamadul Moustapha nga ciy jàppale ndax damay wax ni plus de quarante cinq ans wala quarante six ans yàlla dogal bi mu yanoog tey quarante six ans waaye mësta noppalu ngir tabax lan li nga xam ni bu defaroo réew defaru te mooy ndaw ndax ça doit faire plus de quarante et quelques années benn causerie bu Serigne Cheikh doon présenté ndax ku ne xam na ni 1968 ak 1978 ku ne xam na li ko marqué woon ci ay révolte ci wàllu jeunesse bi Serigne Cheikh wax nag ni senegal ñu xool fu ñu jaar ba dabaatal ndaw ñi farata la ci la sosé al moustarchidine wal moustarchidaat nga xam ni yitteem yépp mooy tabax ndaw mooy tabax réew waaye nag yàlla dogal moom góor gi bim ci defee lim ci war a def 2014 moo xam ni lépp lu ko waroon ci tabax euh, réew mi lu ko waroon ci defar ndaw ñi la ko ca waroon yëpp def na ko yàlla dogal mission boobu nag tey jii moom la jël teg ko ci loxo Seyid Cheikh Ahmed Tijane si xam naa moom boo ne capitaine réew mi léegi am fu xel yëpp dem loolu nag mooy wane mission bi mu yor loolu mooy wane responsabilité bi mu yor moom tag wax dëgg yàlla décennie bii yëpp ku ko jege wala kuy suivre ay activités am di nga xam ni noppaluwul ngir moom tam di xool fu mu jaar jeunesse bi ba canaliser leen pour xool fu muy jaarale jeunesse bi ba orienter leen moo tax ku suivre corps di nga gis Colisée de l'éveil ak li fay génn ci dimension intellectuelle yëpp te moom moo ko initié ba ci gàmmu gi exposition bi ngeen di gis mu teg beneen lu ñuy tuddee checkpoint céleste yëpp di ay rendez-vous intellectuel mu ci dajale borom xam-xam yi euh, di ci def échange ak ñoom la cay juge ci njariñ ku ko suivre rek yaa ngi koy gis macha allah yàlla dogal ah lii doxal mouvement bi yépp nag ces dernières années góor gi bàyyi ko ci loxoom mu di ci def li mu mën moo tax bi ngeen waxee ni yéen a ngi ñëw te bëggoon ziar si góor gi te fekkoon moom góor gi mu xëy bouger rek mu ni comme capitaine mi ngi fi mu ni bu ngeen ñëwee na leen dalal bu ngeen ñëwee na leen teeru wax dëgg yàlla moom arab dafay wax ni alwaladu sirru abihi moom bu ngeen ñëwee bu ngeen ko fi fekkee fekk ngeen fi góor gi ci wàll yëpp macha allah ñu ngi leen di santaat bu baax a baax ci déplacement bi di ñaan yàlla na yàlla barkeelal leen di ñaan li nga xam ni yaakaar bi nga xam ni réew mi am nañ ko ci yéen ba tax ñu dënk leen liñ leen dénk yàlla na leen ci yàlla woon lu kawe seen njort bi xurmati sayidil wujud sallallahu alayhi wa sallam yàlla jàppale leen te taxawu leen ah kon nag ñu bàyyi protocole bi ni ngeen ko tëralee rek ngeen yëkkati kàddu yi ñuy yëkkati suñ paree rek ñu jox sëriñ bi mu yëkkati kàddu yi mu yëkkati incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullah balu waq di leen euh, euh, balu waq ci bett bu leen bett Euh, comme ni ngeen ko xamee on est venu avec une euh, grande délégation euh, dans le cadre du Gamou maa ngi ànd ak euh, directeur Sénégal numérique nga xam ne lépp luy yëngu ci wàllum communication et numérique de manière générale ñoom ñoo koy gérer ànd ak aussi euh, directeur de maison de la presse monsieur Biagui Sambou waa euh, APS nañ ce matin pareil pour la RTS ak TDS ak toute la délégation Euh, également directeur de la poste monsieur Maguette Kane parce que bi gàmm gi jub soo euh, le président de la république euh, daf ñu wax ne ñu en conseil de ministres nañu xool lépp li nga xam ne matuwaay la waxuma la ci jouru gàmm gi mais ci weer bi qu'on essaie de faire en sorte que lépp yemb c'est vrai que matal lépp nag lu difficile la mais en tout cas nous on a instruit à ce qui nous concerne sunu équipe yi ñu def sunu kéemtalaay kattan ba lépp loo xam ne euh, antenne relais la wala mu nekk foo xam ne dafa am zone blanche ñu essayer de faire en sorte que ñu teg les dispositions qu'il faut euh, pour que ci weeru gàmm gi à commencer par le bourdu ba jouru gàmm gi lépp lu ñu war a mettre en terme de moyens de communication ñu def ko euh, loolu moo nekkoon tànku tey nag moo tax ñi ngi si sillonné Tivaouane depuis ce matin pour xool yi nga xam ne moom la ñu dénkoon suñu équipe est-ce que matale na bu matali huit ñu jéem a xool yan disposition euh, lañuy ñuy euh, mettre en place euh, pour que incha allah lu ñu mën a yeggali incha allah ñu yeggali ko loolu moo taxoon tey bi ñu jógee lu tax may jéggalu ci betteel bi bi ñu xëyee dañ ne mënuñu dem Tiwaawan te ñëwuñu ziar góor gi loolu moo taxoon on a tout fait ce matin parce que ñëw bi dafa bette man je suis rentré de la Chine bërki démb ci guddi daanaka bi ma ñëwee la fekk équipe bi préparé yëpp ci laa leen waxee nag est-ce que bu ñuy dem dinañu gis Serigne Moustapha ñu ne ah dinañ woote pour xool le protocole est-ce que y a moyen parce que xam nañ ne euh, ci période de magal gi gàmmu gi pardon vous êtes sollicité et que jamono aussi neexul parce que xam nañ ne ñëw pour ñëw fii ñëw bu ñuy waaj la donc on aurait aimé vraiment prendre les dispositions pour may leen le temps annoncé pour mën a gis góor gi mais comme Euh, bu ñu gisee capitaine mel na ne gis nañ góor gi parce que comme ni ñu koy waxee ne Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye de la même manière on peut dire que capitaine Serigne Cheikh moom mooy Serigne Moustapha Serigne Moustapha mooy Serigne Cheikh loolu moo tax am nañu mbégte vraiment euh, pour ñëw échanger ak yéen euh, d'autant plus que par rapport ak li nga xam ne moom lañ moom la ñu dénk muy conscientisation des jeunes je pense que Serigne bi mu koy wax sànq loolu jëmm ji nga xam ne moo taxoon ñu ñëw fii gis nañ liggéey bu mu ci def depuis pratiquement plus de quarante ans euh, parce que je pense que ñun ñu fi nekk ñëpp qu'on le veuille ou pas qu'on soit Tidiane ou pas qu'on soit Mourchatide ou pas on a été bercé vraiment dans ce dans ce sillage parce que nekk nañu xale di dem daaray ngoon nekk nañu xale di dem colonie de vacances te nekkuñu forcément Mourchatide pour vous dire qu'il ya des des souvenirs vraiment yoo xam ne euh, bu ñuy rappel ce mouvement de conscientisation yi nga xam ne Serigne Moustapha initié na ko ñu doon dem di jàng euh, alxuraan bu ñu jàngee école ba pare l'après-midi pendant les périodes de vacances ñu dem colonie de vacances et cetera et loolu lépp loo xam ne contribution la boo xam ne Moustarchidine wala Moustarchidaat initié na ko ci jeunesse sénégalaise loolu moo tax euh, ñu mu nekk lu lu reconnaissance bu mag ci ñun parce que lu ñuy wax rek Sénégal la ñu bokk te képp koo xam ne yaa ngi œuvrer pour que Sénégal jëm kanam surtout cette jeunesse bi nga xam ne mooy le poumon de ce pays comme ni ngeen ko xamee je vous apprends rien plus de pour cent de la population sénégalaise est très jeune moins de 35 donc képp koo xam ne yaa ngi œuvrer pour cela mooy yaa ngi œuvrer pour le développement de ce pays et sous ce rapport wax dëgg yàlla ñu fay Serigne Moustapha ci euh, jéego yi nga xam ne teg na ko ñuy ñaan yàlla njaboot gi aussi ñu euh, am cette ces travaux de perpétuation par rapport à sa legg bi nga xam ne def na ko fii te wax dëgg yàlla ñu ci ñu ci euh, euh, am nañ ci yaakaar parce que gis nañu jéego yu ñuy teg je dis que au-delà de de de l'aspect religieux parce que mënoon ngeen toog ne famille religieuse lañ sunu kurus lañ yor sunu sijaada toog di ñaan et cetera mais à chaque fois que le pays a besoin muy euh, la préservation des acquis démocratiques gis nañu taxawaay bi ngeen ci taxawee moo tax sous ce rapport wax dëgg yàlla nekk na loo xam ne lu ñu lu ñu marqué la nekk na loo xam ne c'est des enseignements yoo xam ne à perpétuer pour la jeunesse sénégalaise moo tax pour bañ a guddal euh, sëñ bi ñu ngi vraiment am mbégte euh, toog ak yow pour la première fois on aurait vraiment aussi ziar góor gi mais bon xam naa yoon yamul ci benn on essaiera incha allah de venir une prochaine fois avec toute la délégation toute l'équipe pour wax vraiment yéene bi nga xam ne am nañ ko ci réew mi ak engagement bi nga xam ne le président euh, nouvellement élu jël na ko e kooku comme je dis d'habitude euh, mënu ko def moom kese le gouvernement du Sénégal mënu ko def moom kese l'ensemble des ministres mënuñu ko def ñoom kese on a besoin vraiment d'avoir des relais surtout par rapport ak jamono ji ñu toll nga xam ne euh, jeunesse bi am nañu espoir mais am na un travail de conscientisation boo xam ne yéen yéen a ko war a def pour ñu gëm ne dëkk bi dina changer incha allah et kooku le président vraiment mu ngi ci tàllal loxo di ci euh, en tout cas wastu seen seen xalaat ak seen xel bu rafet ngeen accompagner ci vraiment pour que espoir bi nga xam ne yaakaar bi nga xam ne jeunesse bi am na ko incha allah et on est presque on est sûr vraiment certain que am ngeen un grand rôle ay jouer loolu moo taxoon ñu ñëw tey vraiment pour feddali leen sunu sunu sunu amitié vraiment sunu talibé sunu euh, euh, nu ñu koy waxatee encore Euh, sunu ziar euh, di wax ne incha allah euh, nous sommes à disposition vraiment pour pouvoir discuter discuter en tout cas sur sujets yi nga xam ne c'est des sujets sociétals sujets sociétaux pardon yi nga xam ne jàpp nañ ne suba mën na mën na mën na jàmmale ki dëkk bi incha te jàpp nañ ne wax dëgg yàlla amuñu xel ñaar que ne bu ngeen ñu ci accompagner nañ mën a yeggale réew mi foo xam ne wax dëgg yàlla jeunesse bi xaar na ko et je pense qu'il est temps avec notre génération de pouvoir vraiment sortir ce pays-là dans l'état dans lequel il depuis pas mal de temps et sa ñu ngi ci tàllaat loxo incha allah di leen jéggalu ci kàddu yi xam naa ne bari na lu dëng loo xam ne te xam ne voilà defar rek moo ci tax a jublu encore une fois sëñ bi di leen tàllal loxo di leen ñaanal vraiment yàlla dëgëral leen yàlla dëgëral pas-pas bi yàlla taxawu leen ba yéene bi ngeen am ci ci ci ci dëkk bi bi nga xam ne moom la seen maam amoon ci jeunesse bi incha allah seen lekk boobu ngeen mën ko yeggale ba nga xam ne voilà les pères fondateurs yi incha allah fa ñu nekk danañ mën a fier ci génération bi nga xam ne moom lañ fi bàyyi di leen santaat di leen gërëm incha allah. waaw monsieur le ministre sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu. yow ak délégation bi nga àndal. di leen ziyaar di leen bàllu àq. di leen baal àq itam. di leen itam wu coono. nee na kàddu yi mën na bañ gudd. ndax lii farata wax nañ ko ba pare. waaye di rafetlu seen ñëw. yal na yàlla def mu jur njariñ amin yaa rabbal alamin na mbir yi événement la waaye événement boo gis pensé ba ko jur moo ci am solo ndax ñi ngi wax gàmmu tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye gàmmu gi yonent bi moomu ko ñun askani yonent bi mu fi bàyyi te mooy ñun jullit yi ñoo moom gàmmu gi li tax ñun lay suñu occasion. ñun lay suñu occasion. ñu war a def un travail de comparaison. ñu war a def un travail de comparaison. diggante yonent bi nga xam ni moom mooy l'ultime musulman. diggante yonent bi nga xam ni moom mooy l'ultime musulman. ak ñun ñi nga xam ni dañuy tendre vers. ak ñun ñi nga xam ni dañuy tendre vers loolu. diine gu mate noonu. diine gu mate noonu ba tax na. ko def rek yëfu feet nii kese. ku ko def rek yëfu feet kese kese. dina am lu la rëcc. dina moo tax am na loo xam ni. ñépp a ko bokk. kenn rek mënu ko jël ni lii mënu ko jël ni lii man rek maa ko moom. ndax li nay faral di wax ni yiw. kenn du ko xëccoo. yiw dañ koy yaatal. boo boo ko yaatalee. nga am ci sa wàll wàll ñi nga war a wàll ci mbaaxu suñu boroom yéen nag ci seen liggéey dañ leen di xaw a ñeewant ndax ku yenu liggéeyu réew fi yeeg askan wala fal parewuñu ci yow moomatoo sa bopp ndax na nga gàddu moo tax ba tax na yal na leen ci yàlla gunge amiin ya waaye dafa am lu jar a bàyyi xel ci yëf yi te mooy lu sëriñ Cheikh musoon a jàngale te yaakaar naa yéen it ak fi ngeen toll ci yëf yi yaakaar naa baat boobu dana leen jariñ nit mës ndax benn nit daf ko mës laaj ni ko. diine lislaam bi ni ko jeunesse bi songee. lislaam ni ko jeunesse bi songee. lan moo ci sa xalaat loo ci gis. Serigne Cheikh ni ko dama ci tiit. mu ni ko ndax. mu ni ko ndax. la ñuy wër feneen. la ñuy wër feneen. xool ko fu nekk. xool ko gisuñu ko fa. yaakaar ko ci diiney lislaam buñ ko fi gisul damay ragal ñu génnaat ba pare dëkk ci réer xëy na moom moo ko indi ci cadre diine mais ça s'applique à toute la vie moo tax ma leen di ñeewant ndax yaakaar yi aju ci yéen moo ni toll mais dafa am sutura bu yàlla def ndax lu rafet rekk a rafet ndax sëriñ Moustapha daf ñu yar ci lenn daf ñu yar ci pragmatisme ndax ku pragmatique di nga comprendre ni xëy na souci d'organisation moo tax ñuy tudd ay parti politique ak bañ jaxas gu ëpp ci biir askan bi waaye réew lenn rek a fa am solo mooy ñi am seen yéene bu rafet jëmale ci réew mi peu importe fi ñuy man di bokk li ci am solo mooy ñu nangoo sonnal askan wi moo tax loolu rek moo ci am solo ñu nit ci loolu lañ sëñ Moustapha yar moo tax muy parti pur ak di beneen parti muy ñoom moom mii di Serigne Moustapha njëriñ nit ñi rekk moo leen yitteel yal nañ ci yàlla boole saxal ah, moom nag xëy na ni ngeen ko waxee ni yëf yi tëdd la waaye bu ko fi fekkoon moo leen di resevoiral boppam waaye comme ni mbir yi tëddee musantoon leen ngeen recevoir ah moo tax kilifa nag lu mu tëral xam na li tax kon ñu bàyyi yëf yi ci loxoom di leen ñaanal yal na leen yàlla jàppale ci seen liggéey mottali yéene yu rafet yi te musal leen ci yàqkat te musal ñu ñun ñëpp ci yàqkat ci mbaaxu yàlla incha allah nee na xam na ni sax guddal na am na solo sëriñ bi waaye lu mënu woon ñàkk la di leen sant ci ñëw bi di leen remercier ci yitte bi yal na ko yàlla barkeel incha allah jërëjëf Merci.